أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة Thank you. هيا على الفلاح هيا لا
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته يقول جل في علاه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala bii borom bindee fi ñu ngi seede ne amul kenn beeroo jaam ci dëgg ku dul moom allah subhanahu wa taala moom bi jurul kenn kenn juru ko moom yàlla mi nekkul nawlu ci kenn ñuy seede ne suñu sang Muhammad alayhi salaatu wassalaam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla yàlla fayal ñu ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci diwam bi rafetal ba ko yàlla subhanahu wa taala di gën suufam si mbokk yi ñuy dénk suñu bopp dinañ dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ak topp ko yàlla mu ne nañu di bàyyi xel ci suñuy jëfa di wax ci bis bi nga xamante ni mu ngi suñu kanam war cee dellu suñu kanam borom subhanahu wa taala te delluwaat boobu képp ku nekk lan ko njëkkoon a ko wax da nga fekk si yàlla subhanahu wa taala mu fay te yàlla du doon kenn ma rabbuka bi dallamin lil abd mbokk yi suñu xutba yi tey bi iznillah ad-duruus la al-mustafaada min xutbatil wadaa mooy ay jàngat ci xutba bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xutba woon ca Arafa muy xutbay tàggatoo ginnaaw bi ñu xam leen ni yow ma arafa bii ñu génn bis la mu màgg ci islaam ñi nga xamante ni ñooy ñooy aji ca màgg bonk la ci ñoom ci seen aj lañ koy def wante xéewal bi nga xamante ni moom fa yàlla defal mooy yàlla subhanahu wa taala da leen tiim ñoom waa arafa jéggal leen seen bàkkaar innahu maghfuran lakum la leen yàlla di wax yàlla di buugarewu ci ñoom ca malaaka ya ca kàddu yi nga xamante ne moo génne ci ñoom muy kàddu tawxiid bokk yi xéwal googu law ku nekk ci àdduna bi ba kenn ku nekk xam ni woo bis boobu yu kafir dafay pomp di bàkkaaru ak ma nga jëkk a dund ak at mi nga xamante ni moom nga dëgmal màggaayu bis boobu ak bërëb boobu ak ci weer yi nga xamante ni foofu la ñu nekk moom la alayhi salaatu wasalaam xutba woon gi dee xutba la mu jëkk a wax ci xutba boobu mooy alayhi salaatu wasalaam daf cee leeral lii di bakkan doomu aadama ak lii di alal doomu aadama naka lañ ko war a xormaale mu ni ayuha nnaas inna dimaakum wa amwaalakum alaykum xaraam ila an talqaw rabbakum ka xurmati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada mu ni bis bi nga xamante ni mooy bisu arafa muy bis bu màgg ak bërëb bu tedd bii ñu nekk muy makkatal mukarram ak ci weer bii ñu nekk muy shahru dil hijja bokk ci ashhurul xurum weer yi nga xam te moom lañ xormaal mu ne yile bis bile bis ak bile bërëb ak bile weer ni mu amee xurma noonu la faat bakkan ak alal doomu aadama amee valeur ci yàlla subhanahu wa taala mbokk muy xutba boo yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñu jàngalee ana naka la ñuy defaree suñu pénc ba mu nekk pénc mu dal pénc mu am jàmm yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ma ni wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq nee na bu kenn faat benn bakkan boo xamante ni nekkul shariatul islam yi moo wadd ci kawam ba ñu war a rey foofu leen ak mbokk yi lii di diine doomu aadama lii di xelum doomu aadama ak lii di bakkan islam daf cee joxoon ay charte joxe ci ay ndigal ni dañ koo war a wattu sàmmal ko nit ñi nit ñi dañoo war a sàmmal seen pas-pas muy seen diine sàmmal leen seenum xel ba lenn muy fëkk seenum xel ci lu ñuy togg wala lu ñuy naan ñu fexe ba du egsi ci ñoom yóbbu seenu xel waaye sàmmal leen tamit seen sécurité ba ne ku nit ku nekk mën a dund ci teyu bakkanam ba du doon dox di xalaat ni dinañ ma agresser ci biir yoon faat ma yóbbu sama bakkan yàlla mu ne innahu man qatala nafsan bi xayri nafsin aw fasaadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamia mu ne képp koo xamante ne de faat na benn bakkan wala muy semi désordre ci kaw suuf mooy li malaaka yi waxoon suñu borom subhanahu wa taala atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yàlla mu ne képp koo xamante ne def na loolu de yaa ngi mel ni ko faat àdduna bi yëpp ñu fi nekk ci ay doomu aadama yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa teg ay garde fu ci naka la ñu war a sàmmale doomu aadama ba kanam ba képp ko sax rey mu ni laa yushiru ahadukum ila axihi bi silah mu ni bu kenn ci yéen jël lii ñuy wax arme di ko braqué ci mbokku jullitam ak ku mën a doon sax bul jël arme di ko braqué ci moom ndax nee na amaana paaka boobu wala fetal boobu wala jumtukaay ba nga xam ne mën naa faat bakkan nga jumale ko ci moom donte da ngay foofu nee na iblis mën na laa nax jum loola ba bakkanam des ca nga mujj dégg ci nga xamante ni ñoom seen bàmmeel xufratun min xufri naar lay bokk ci xuur ci xuur safara ya wal iyaazu billah mbokk yi ngir sàmm bakkan yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu saxaaba yi musaan ànd di dem xare te xare nekk lu islam yoonam yonente bi alayhi salaatu wasalaam da leen daan digal bu kenn faat ñii di ay mag bu kenn rey mag bu leen rey it benn gone bu leen rey benn jigéen nga gis ni alayhi salaatu wasalaam ba ci lii nga xam te ne islam moo ko sartal muy xare da ci daan digle ni bu ñu rey lii di xale bu ñu rey mag bu ñu rey jigéen mbokkee xool leen fi suñu àdduna toll tey ci suñu réew ba ci àdduna bi yépp lii ñuy salfaañoo lii di àq ak yelleef doomu aadama fee ci Gaza ñaatay xale lañ wax ne rey nañ leen fa fii ci Sénégal léeg-léeg nga dégg ko ni moom da dafa jël doomam bi xaw ma lan moo ko traumatisé ba mu jël doom bi dóor ko ci la baax su faatu wala xawla wala quwwata illa billah alayhi salaatu wasalaam jàngaloon nañu yi nga xamante ni buñ ko bàyyi rek rek suñu dund dina nekk dund boo xam ne dund bu dal la dund bu am jàmm ni mu waxee ñu sàmmee ko doomu aadama bakkanam noonu la waxee ñu sàmmee ko doomu aadama alalam alal doomu aadama ak lu la ko islam sàmm sàmmloo daf laa digal ni na nga koy utee utin ko nekk utin boo xamante ni bu dagal la fa nga koy jëfandikoo tam mu nekk boo xamante ni bu dagal la yàlla mu ni moom yàlla subhanahu wa taala daganal la de ñu fàggandiku alal waaye xaraamal la li nga xam ne mooy riba mbokk yi ñaareelu jàngat bi ci xutba yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy ni moom alayhi salatu wasalaam nee na ala wa inna kulla cheyin min amri ljahiliya mawduun taxta qadamiya hatain mu ni jëf yi nga xamante ni dañ ko daan jëf ci jamono jahiliya di jaamu ay xaram di not doomu aadama di di di xotti ay warmaam di lekk alalu jëriñ yi ak alalu ndëw yi ci lu seen teyu bakkan ci ñàkk a maandoo lépp loolu féete nañu ginnaaw nee na loolu lépp bis ni ko tey féete nañu ginnaaw lu ñu gas la enterré ko mu nekk ci biir suuf mbokk yi ba tey buñ dellu si waatee ci jàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci yii nga xamante ni moom na ne buñ ko bàyyee xel suñu pénc mën na cee jàpp muy loo xamante ni jamono te boo koy natt muy ci biir réew bitim réew daanaka lu ñu salfaan noonu alayhi salaatu wasalaam ci yi mu digle mooy ki ci jiitu woon ndax alquran daf ne atamuruna annasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun ndax da ngeen di digle ak mbaax te du ngeen ci jiitu moo tax alayhi salaatu wasalaam daa wax ni lii may digle de bu fekkoon ne sama doom ji baatu ma def na ko ma def loxoom kon alayhi salaatu wasalaam lam doon digal jullit ñi moom mooy ci jiitu woon ba tax penc bi nga xamante ni fa la nekkoon muy dawla islamiya nekkoon dawla boo xamante ni bu tege ci maandute la bu tege ci jub bu tege ci jàmm aqul ma tasmaun astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم صلاة وسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di seen ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ba tey ci xutba bi nga xamante ni alayhi salaatu wa salaam moom la xutba woon muy xutba bu mat bu jotale bu képp koo xamante ni bàyyi ko koo xel jëfe ko yow sa dund mën naa dee dund bu dal dund bu yàlla gërëm ñetteel bi ci dénkaane yi ci jàngat yi nga xamante ni moom lañ jàngatee xutba bi ak xutba bi di xutbatul wadaa mooy alayhi salaatu wasalaam mi ngi jàngale al muamalatul xasana ma an nisa mooy ñu jëflante ak ñii di soxna yi jëflante bu rafet alayhi salaatu wasalaam mu ngi wax ni fattaqu llaha fi nisa fa innakum axastumuhunna bi amanati llah wastaxlaatinihim furujahum bi kalimati llah mu ni na ngeen ragal yàlla ci jigéen ñi ci soxna yi ndaxte ñoom de lu jiitoon islam nu nekk lañ doon jëfandikoo jigéen wante léegi jigéen yàlla jox na ko valeur boo xamante ni amul kenn kuy egg ci jigéen lu dul ni dañ leen boole ci biir nit mu ne nag kooku nga xamante ni dénk nañ leen ko muy koo xamante ni ku oyof la ku sensible la ku bari lool sax ay njumte ak i bànneex kooku na ngeen leen bàyyi xel ci biir néegu sëy mbokk yi ndénkaane boo xamante ni ki ko dénkaane mooy alayhi salaatu wasalaam ci jigéen buñ ko bàyyi woon xel dëpp jamono jii li ñuy wàññi ci ay divorce li ñuy wàññi ci ay jigéen ñu dellu seen biir kër te la ko waral lu ci bëri mooy ñàkk yërmande goo xamante ni ñàkk nañ ko yërma yërëm soxna yi ci biir néegu sëy leneen mën na nekk cause ba tey mooy jigéen ñi nga xamante ne nax nañ leen ci ni ñaari loxo mooy takk tubay ñaari loxo mooy takk sëy ba seen biir néegu sëy nga xamante ne moom mooy seen entreprise bi ñu war a jaamoo yàlla dëgg dëgg jaamu yàlla ñu xeeb la nga xamante ni seen borom kër yi moom la leen di jox di xool di teg seen bët fi nga xamante ni ñeneen ñi am nañ ko ñu leen ci jéem a roy ba tax ñu ne fi ñëpp seen biir néegu sëy bàyyi fi njaboot bàyyi fi borom kër gi ba bu ñëwee sax toppatoo gi ñu ko war a toppatoo boo waxee ñu ne ah comme que joxoo ma lu doy ma dem uti ji ko rek yii bokk na ci li nga xamante ni indi na ay gàllankoor ci biir néegu sëy waaye alayhi salaatu wasalaam li mu jàngale mooy ñun góor ñi dañuy bàyyi xel soxna yi ci di leen yërëm ci biir néegu sëy yi yàlla mu ni wa aachiruhunna bil maaruf soxna yi nañ leen denc ci njëkk mbokk yi ku am xel tuuti sax mën na bàyyi xel yi soxna soo xam ne dañ la koy jox amaana ku xale bu xamul dara la ku xamagul dara la jóge ci biir néegu ay waajuram ñu toog teg ko say loxo mu jël lu gën a cher ci dundam njëkk la ko jox alal aqal mooy lépp lu mu la mën a def ci biir néegu sëy na nga bàyyi xel lii nga xamante ni yëkkati woon na la ko jox la ko wolof day wax ni boo xamul noo koy def nan la dafa tax mbokk yi alayhi salaatu wasalaam dañu ñu dénk ci xutbatul wadaa mu ni ñun de bu fekkee ni bëggoon ñoo dund dund bu dal bu am jàmm muy ci bis boobu la ko tàmbalee bis boobu ba ko bis lañ ci di taxaw ndax keroog ba mu daanelee xutba daf ni fal yuballigh shahid minkum ar-raghib ñi fi teew ci yéen nii nañuy jottali sama wax ji ci ñi nga xam ne teew ni la ko yonent bi alayhi salaatu salaam ni taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab allah wa sunnati yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dina leen bàyyee ñaari mbir yoo xamante ni fi léegi yéen a ngi ci mooy du ngeen réer mukk du ngeen sànq lu ngeen di def rek yàlla gërëm lay doon mu ni kitaab allah muy téere yàlla bii di alquran karim fa la yàlla wax ak ñun amul kenn ku ñu mën a àttewoo bu ñu mën a référé woo ba am dund bu jàkk ci lu ci téere yàlla bi alquran karim mu ne moom laa leen bàyyeel ak lan mbokk yi mu ne ak sama jàngale man alayhi salaatu wasalaam ak sama sunna kon sama jàngale mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam toogaat na ca bërëb di waaraat di waaraat di waaraat ba sahaaba yi ku nekk di jooy ne ko yow alayhi salaatu wasalaam dafa mel ni sa wax ji ngay wax ni da ngay tàggatoo waaye kon dénk yonente bi alayhi salaatu wasalaam dénk la ne innakum man taish minkum fa sa tara ixtilafan katira muy dégg leen nii maa ngi leen di wax ne jamono dina toll foo xamante ne di ngeen gis wuute bu bëri ci sama njàngale kii wax jëme fële fële wax jëme fële ba nit ñi seen wàllu bopp dañuy mujjee jaawaloo bu ñu xam lan mooy li yàlla wax ak lan mooy lu yonente bi alayhi salatu wasalam wax nga gis nit koo xamante ne sax dina dem di woote woo ci diine waaye indil la ay xadis ak ay aay yoo xamante ne nan koy tatwilee da koy def ci loo xamante ne lu ko sax arrangé lay doon yonente bi alayhi salatu wasalam nee na mu ngeen topp demee ba toll ci jamono jooju alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa rachidin na ngeen jàpp ci li nga xamante ne mooy sama jàngale ak jàngale saxaaba yi nga xamante ne man maa leen yar man alayhi salatu wasalam alquran bi wàcc ci man mooy jël alquran bi di ko di leen ko wax muy wàcc ci ñoom directement amul intermédiaire yonente bi alayhi salatu wasalam yar leen ci li nga xamante ne mooy aqidatu islamiya mooy na ngeen jël seen ak jàngale ci man ak li nga xamante mooy sama saxaaba yi alayhi salatu wasalaam wax duñ ko dee mu ne abdu alayha bin nawakis mooy na ngeen ko nank ci seen bële mbokk yi ki ñu fi gën a diaboliser ci jamono ji ak foo mën a bokk mooy nga ni man dama tegu ci yoonu yàlla boo dee xale nga tegu ci yoonu yàlla de xale bu jigéen nga ne da ngay muus sa yaram ñu ñu ñu ñu ñu tuumaal la wax ay wax sax ne la bu fi tey de yaa ngi gaaf nga yaa ngi yaa ngi gaaf ka indi ay gaaf indi la ay gaaf indi la gaaf bu mu ci jël loolu noonu teg fekk nga nekk xale bu góor waxamaana fu waxtu julli jotee nga ni maa ngi dem si jàkka ji fépp nu waxee yoonu yàlla yaa ngi di jàng di waxee ñu ne ak kii de moom waaye yow yow yow bu ñu tànnee maanaam diaboliser ba nga xamante ni daanaka la yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyil la teg nga ko fële topp li nga xamante ni àdduna bi islam bu xott war mbokk yi islam diina la boo xamante ni mooy diine dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la tëjee ay waxam ba mu daanalee la jibril alayhi salaam ñëw taxaw wàcceel ko aaya bi nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala wax ni اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا mbokk yi xool leen aaya bi muy wax mu ni bis ni ko tey bii muy bisu arafa ca bërëb bu tedd boobu di makkatal mukarram ci weeru màgg wi du di xëj yàlla wàcce aaya bi bis ni ko tey bii de matal na lii di seen diine amul lenn loo xamante ni lu ñu yokkati ci diine bi la amul lenn luñ naan ah lii de alayhi salatu wasalam da koo fàtte wala yàlla da koo fàttee wax lépp yàlla leeral na ko ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam laata moo fàtt mu ni wa atmamtu alaykum ni'mati xoolal lu jiitu woon barab boobu nag mu taxaw fa lañ leen dàqe woon rey ñii ñii tuur ñu tuur fa seen deret ñii ñu nangu fa seen alal dàq la lépp mu gën dem Madina ba bés boobu noonu ñëpp yonente bi alayhi salatu wasalam dajale war leen ana gën xéewal moo gën a rëy boobu lay xéewal ñu joxe ponk li nga xamante ni mooy juróomeelu ponk islam bi mu alxaj alayhi salatu wasalam dégg leen yàlla wax ni bis bii de tey jii matale leen xéewal bu ñu waroon wàccee ci yéen ñu ci xéewal islam ñu ngi leen di jàppaloo benn diine boo xamante ni mooy diine islam inna diina inda allah islam képp koo xamante ne bàyyi ko ci diine islam bi nga jàpp leneen lu mu diine islam kooku de jàpp nga ci loxo tontu koo xamante ni koy def la mbokk yàlla na yàlla defal jàmm yàlla sàmm ñu sàmm ñu suñu pas-pas ba lii nga xamante ni mooy fëkkaati ci àdduna bi ci ay jaaxaan yàlla sori lay ñu ko moytu loon tamit yoon siraatal mustaqim suñu xujjaa yi nekk ci baytullahi xaraam nekk ci jihaad muy aj yàlla na yàlla jël si leen ci jàmm te yàlla defal leen xajjan mahmuuran wa sa'yan mashkuuran wa zanban marfuuran wa amalan saalihan mutaqabbalan ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.